Touba nga koy defal ak ñi nga xamante ni yëpp dinañ jóge fu sori ñëw fii fekk si fekk fii liggéey bi nga xamante ni moom nga suma ci ci dëkk bi kon fi ma tàmbalee rek laa jeexal mooy ñaan yàlla li nga xamante ne dara teew ko ku la wér gu bu sax dëkk guddal fan yi lool ba li nga xamante ne sumb nga ko nga eggal ko jàmm ci alhamdulilah rabbil alamin ndax xam nañu ci bismillahi rahmaani rahim nga ko tàmbali salaamaaleykum wa rahmatullah